lankum Idrissa Gana Gueye ci sol mayo bi ñu bind ak couleur drapeau LGBT mi ngi wéy di def cow ci tàggat yaram bi lank boobule sanu si jàpp ne lu jaar yoon la ndax jour bi da ci ànd ak ngëm-ngëm. Il a gardé sa fierté sa dignité sa religion sa conviction ses croyances et il ne les a pas perdues en fait c'est ça l'être humain il ne faut pas mettre en avant le côté pécuniaire des choses non chaque chose que tu vois il y a forcément des limites et c'est je ne participerai pas à cette apologie. Youssoupha Ciss gis-gisam mooy sol maillot dafay mel ni promouvoir kuréel bii di LGBT. il ne doit pas être sanctionné pour en fait athlète la choix que dans ci contrat bi ko lié ak Paris promouvoir affaire de LGBT amu parce que bu ci amoon kon bu liiree contrat ba mu jeex bu ci gisoon accord boobu du signé Paris quoi France LGBT dafa légal équipe yooyu noonu pour promouvoir faire rendre leen hommage et comme ça a refusé parce que ça ne Malé Dramé xalaat ni milieu de terrain bu Paris Saint-Germain biile mérité na soutien wu képp kuy xeex ñu jëlee fii lobby yu mel nii. occidentaux yi ñoom ñoo ne droit de l'homme ci ñoom la fekk baax droit d'expression ci ñoom la fekk baax wala boog liberté d'expression laa bëgg a wax liberté d'individu ci ñoom la fekk baax bëgg ñu nangul leen góor a góor di sëy jigéen a jigéen di sëy c'est un peu contradictoire quelque part te ñoom duñ sax bàyyi xel beneen bi mooy li am solo mooy jullit bi mu xam à chaque fois li koy xaar mu xam ne diine l'islam amul jàpp lii bàyyi lii mu xam ne diine bu mu mën a doon sax amul jàpp li bàyyi jàpp yëpp wala nga bàyyi yëpp alors boo jàppee yëpp nag koo bokkulul conviction koo bokkulul gëm-gëm da lay bàyyi l'essentiel mooy que musulman yëpp taxaw ci côté jàppale ko encouragé ko ñaanal ko wan ko nekk ci dëgg parce que ndaw mën a nekk ci dëgg mais bu gisee mag mu ko jege dina mën a yëgaat boppam moom moo nekk ci dëgg ngir bañ a symboliser lobby di LGBT maanaam kuréel bu ëmb homosexuel ci bu ñu amaloon ak Montpellier loole jur ab critique yu bëri ci joueur sénégalais bi lee jugee ci Dantoy